ñu nekk ci ay waxtu yi nga xam ne ni lu ñuy salfaañe ak ak yelleefu doomi aadama yi bëri na trop ci dëndub Afrique loolu tax ba ñuy waxtaane lu ci bëre yoon bi nga xam ne ni moom moo war a àtte yi la ñaawteef ngir képp ki nga xam ne ni def nga ko ñu mën laa tegi daan. il y a évidemment de gens. am na ay nit yu bëri yoo xam ne dañoo soxla protection wante ñi nga xam ne ñoom ñooy faral di amal yooyu crime dañuy daw di làqu ci yeneen dëkk yi. moo ne. dëkk yu ne ci dëndub Afrique amoon nañu yaakaar bu rëy gannaaw bi nga xam ne ni xaatim nañu traité de Rome bi nga xam ne ni moom mooy jëmmal cour pénal international waaye gannaaw bi nga xam ne ni tëral nañ CPI ci atum 2022 ba tey ñu seetlu ni ay nguur ak i chef rebelle ñoo ngi woy di bunu xatal yenn askan loolee tax ba ñu bëre jàpp ni suñuy saafara suñuy réew lañ ko mën a wutte la cour pénale internationale cour pénale internationale dafa am fu dooleem yem doon na juridiction boo xam ne dooleem bëriwul lool te itam li ëpp ci liggéey bi juridiction yi nekk ci réew mi ñoom ñoo koy amal. ni ko Sénégal defee ak Hissène Habré gannaaw bi nga xam ne ni daloo na chambre africaine extraordinaire ngir àtte njiitu réew bu caat ba woon dëkk yu bare yàgg firndeel seen mbëbëtu dooleel seeni magistrat ngir ñu mën a àtte lépp li nga xam ne ni mooy xew seeni biir réew. pour le moment il y a des conflits armés en Afrique fi mu nekk nii coowal armée dafa bëri ci Afrique wante bëgg nañ ñi nga xam ne ñoom ñooy faral di amal poursuite yi ñu gën leen a tàggat ndax ndax ñu mën a xam lan moo nekk ci taxi yi loolu dina tax ñu amal ay poursuite ci anam yu mucc ayib. par la Cour pénale ak jumtukaay yu bëri nga xam ne ni moom lañu tëral ngir ñu mën a àtte ñawteef yooyu ci bitim réew. ba tey ay njiit ñoo ngi rey seen askan di leen tëj ci naka sudul noonu wala tere leen. ñu dem ak dikk ci nu ñu ko bëggee loolu tax ba suñuy réew war a jooyantiwaat yooyu la manquement te tëral ay jumtukaay yi tax ba képp ki nga xam ne ni def nga ñaawte fii ñu mën la fee àtte